convergence bokk gis-gis bu Pape Diop mooy bannière bi nga xam ne du Mbacke Ndaw maire bu Mbacke ci la nama demee ci wotee gox ak gox goxaat yi ab daje bu am solo bu mu doon amal Abdou Mbacke Ndaw mel ni kon tànq na ci bërëb yu bëree bëri bokk ci yooyu bërëb PDS Ginde Askan Wi Parti Socialiste RDS Yessal Rewmi AFP Macky 2019 Madické 2019 Benno Bokk Yaakaar waaye Abdou Mbacke Ndaw ànd ak it kilifa diine yu bëree bëri ak waa diaspora combat bi ñu song dañ ko song muy ab coalition bu mag bu am doole coalition boobu ñu ngi ko tënk aussi ci convergence démocratique ko gis-gis bokk ci la nga xam ni jukki na ko ci waxtaanam moom Abdou Mbacke Ndaw di wax waa Mbacke ñu lànk kenn bañ leen wutal maire waaye di sàkku ci ñoom it nu ubbi seen i gët ba xam ki nga xam ne moo gën ci ñoom te kooki mooy ki leen gën a jege. lii nag combat la mbéjum kanam borom moo koy faja boppam lii élection gox goxaat la kenn ñu tànnal ki ñuy jiite askan wi ñoom ñooy tànn ki leen di jiite te dafa am lu am solo loo xamante ni ku ko xamut it gis nga lee pays asiatiques dañoo gëm ñu ancrage territorial ancrage territorial mooy foo xamante ni sa ndey dëkku fa sa baay du fa yeewoo sa jabar du fa yeewoo say doom du fa yeewoo doo am benn sensation bi nga ci war am nit nit ku ne gox ba ngay jiite. danga fa faa war a woppe wére fa say doom dëkk fa sa soxna dëkk fa say waaju dëkk fa nga dëkk fa mu leer na ne dëkk buy tàkk doo rëcc mais dëkk boo xamante ni buy tàkk nga ne ànd ah, nu gaa yi def <laughs> non non non addina bi dépense foofu moo ñu ne dirigeant yi dañoo war a am ancrage territorial ñun nag suñu bëgg-bëgg mooy dëkk bii di Mbàkke ak département de Mbàkke duñ ci maslaa duñ ci kaf duñ ci rey benn objectif lañ am ci combat bi mooy am victoire au soir du 23 janvier 2022 loolu nag engagement patriotique la et bépp doomu Mbàkke boo xamante ni dëgg yàlla lii ñor na la ñi nañu ñi woote nañ téléphone ñi engagé nañ ñëpp nañ jóg doon benn say combattre l'injustice wante aussi yëkkati Mbàkke commune de Mbacké ak département de Mbacké ba ci dëkk yi nga xam ne moo gën a rayonnant ci Sénégal fii may daanale département de Mbacké Touba mooy bopp bi koy xëcc te mën nañoo wax en terme de primatialité baat la boo xam ne duñ ko farli tutu mooy dëkk bi nga xamante ni ci wàllu démographie ak ci wàllu superficie ginnaaw Dakar région de Dakar nga xam da ngay boole ville euh, commune euh, euh, département de Dakar département de Guédiawaye département de Pikine département de Rufisque département de Kër Massar nga boole ko ne loolu moo raw Touba te dans dix ans Touba raw leen Touba raw leen ci domaine yëpp kon dëkk yooyu wuri si caaxaane di ko teg ci ay clivage politique Touba ak Mbacké mën nañu demal seen bopp dans tous les domaines état nag dafa am devoir dafa am devoir devoir boobu mooy dëkk yépp ku ci nekk la ngay dugal ci réew ma war nañ laa yàkkal lu ñu toll ci effort ba ngay def économie Sénégal soo ci génnee Touba lu ci ëpp normelu parce que Touba li muy consommé environ deux cent quatre-vingt-cinq milliards les les trois mois du magal l'actif circulant des trois mois du magal te bokkut ak événement yi ak li Touba de consommé kon la consommation de Touba soo ko génnee ci li Sénégal de produire ak li importe la ci de du bari dafa am maintenir. il faut que nit ñi xam ne Touba département de Mbacké ay intellectuel lañ fi ay cadre lañ fi ay nit ñu am expérience te it ñoo xamante ni Touba ak Mbacké ak département yi ak commune yi ko wër muy département bi jaral na leen seen bakkan di taalal loxo pour que coalition bi ñu gën ko cristalliser gën a jëm ci kanam ba incha allah rabi le 23 janvier 2023 ñu am convergence bokk gis-gis bu Pape Diop bëgg kon am ndam ci commune bu Mbacké waaye bëgg ko it am ci département bi yëpp.